ca loola yonent bi oo sahaaba yépp Omar bokk ci mu ne leen kenn ci yéen du yàlla nag ñépp di déglu lu dul ne maa ko moom man maa ko man man maa ko gën maa ko gënal lépp lu am ba say doom ba sa jabar ba yow ak lépp nag xam nga bàyyiwul dara Omar daal di yëkkati loxo ngi mel ni fi ma taxaw nii rek ndeysaan di jàngale élèves yi taxaw am ku jóg rek yëkkati baaraam yonent bi na ko bisimilah muy Omar Omar ne ko man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko gënal kon dàq na doom ya yonent bi génne na ko ca maqaama bu doon xalaat ca doom ya yonent bi génne na ko ca nangu Omar nangu na ko Omar nangu na ne dàq na alal yonent bi moo ko gënal alal. ba mu des nag mu ne ko suma bakkan bi muy jëmm ji kon Omar am na lu des ci moom daq na lépp ba mu des bakkan bi yonente bi xuusaat ak moom am fu mu àgg ak moom Omar jógaat ak la mu yëg Omar jógaat ak la mu yëg ne xattaa bakkan bi yow yonent bi yaa ma ko gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koy Omar agsi nga nag Omar agsi nga boobu la Omar génne ca la mu doon xalaat ca la mu defoon ca jaahiliya gis nga ko kon mbir mi du benn fan du ñaari fan école la loolu ñun waajur yi foog ñu xam nan ñuy ommatee suñuy njaboot ba yóbbu leen ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du force du xastaange du gedd du tayal éducation la kon xàq la ci waajur bu nekk muy yar njabootam ak environnement bi ko wër mu yar leen ñu am mahabbatu sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam gis nga suñ ko amee rek daal di daanu nag ci géeju yàlla bi waaye fekk amuñu mbëggeelu yonent bi mënuñoo agsi sax ci tefes bi biris sax duñu xeeñ astumaa nag ñu bugg a bëgg yàlla subhaanahu wa yal na yàlla may dégg ak topp yaaram kon weer wi weeru ngëneel la waxoon nañ ca ginnaaw ne nit dina ci baaxee faw di baax rekk di avancé doo yàqooti mukk waaye nit dana ci ñëw yàqoo ci yàqu boo xamante ne fa ngay jaar ci sa àdduna doo baaxati mukk xam nga li tax ñu ne yee yow da ngay dem ci gàmmu waaye la nga yéene sa bopp mooy jëf ju bon daal moo tax ngay dem jël hôtel taseeg sa coro yow daal loolu mooy sa yéen te est-ce que xam ngeen nit ku nekk la mu yéene moom lañ koy toppee ba nga ñëwee fekk ja ñu baax ñi ñu ngi ca la leen di may sens ñu bëgg yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi joxe lekk ñu ngi yërmaane ñu ngi joxe naan ñu ngi daw ci borom nit ñu baax yi yow moom yaa ngi fexe nan ngay kocce sa ndaw sa pour def lu bon kooku su fa yàqoo mënatul baax kii lan moo tax mu jóg man daal war naa am un million boo xamante ne fokk ma am ko fan laa koy amee ci sàcc ñu def seen équipe nag doo leen xàmmee de ñu ne kii yow da ngay sol lu rafet kii da ngay mel ni dof ngeen diggu ci mbooloo mi nag yal na yàlla may dégg ak topp yal na yàlla boole ci taabiin ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defara ko kii alladi qaala taala fi xaqihi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا سيد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى اله وصحابته الاجمعين وعلى التابعين وتابعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتنافسوا في محبة حبيبه وصفوته باتباعي وطاعتي والاستمساك بهدي وسنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعشرته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أعطى الله قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله ورواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لا أنت يا رسول الله ahabu ilay min kulli cheyin atta min nafsi lati bayna janbay wa qaala nabiyu sal allahu alayhi wa sallam al ana ya omar wa qaala ali bin abi talib karama allahu wajhahu wa rafaa kaana nabiyu sal allahu alayhi wa sallam ahaba ilayna min amwalina wa awlaadina wa ummahatina wa min ma in baridin ala zamin faqad qaalu inna fi qalbi taaqa لا يسدها إلا محبة الله ورسوله ومن لم يصبر بها فحياته كله هموم وغموم وأسرات وآلام ألا فسيروا بسيرة آهلاء في محبة خير العباد الذي من فيده حصلت علينا نحمتان إيجاد وإمداد وقد قالوا إن الإحسان يسترق به الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان ما ما فيه من أوصاف عميدة وأخلاق الكريم المجيدة قد قال تعالى وإنك لعلى خلق العظيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله laa ilaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتقاء الوسيلة وحدنا على طلبة درجة رفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا بي بنفسي وسنى بالملائكة قدسي وسلس بالمؤمنين من جني وإنسي وقال للنبي تشريفا وتكريما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 zaamat katifu katifi ala baabil janna fa aleykum bi iksaar min alsalaat ala nabi shukran tajidu zalika ind allahi wa xayrun wa axsamu ajran allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ali ibrahim fi lalamin innaka hamidun majid allahuma barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fi lalamin innaka hamidun majid اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمان أغلق والقاتم للمان سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وارض الله عن صحابة الخلفاء الراشدين الهادين المقتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر أنمل الأنوار wa an siraaji ahli jannati an naatiqi sawaab shahidi lmixraab abi xafsin seydina umar bnu lxataab wa an munfiqan awaalan fi rida rahman abi abdillahi seydina usman bin anfaan wa an baabi madinati ilmi laysa bani gaalib abi xasan seydina ali bin abi talib wa an sittati lbaaqiya laa zaalat ila alhulaa raaqiya allahuma ansurna bi wansur man nasara ddin واقتل من غسل المسلمين اللهم أهل من كان في علاقة راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزرارهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا وباه تعير من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا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 wa radiyallahu an cheikhina cheikhina ahmad ibnu muhammad tijaani wa an waarisi sirrihi an al itlaaq sayidina wa mumidina cheikh al islaam alxaaji ibrahima ñas radiyallahu anhum ajmain mbokk yi mbokk julli ni ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu ñëpp fépp fu nit mën nekk dañuy seetaan ñu ngi lay nuyu di la wàccee sa wàccuwaay di leen wax na leen dañoo nekk ci weer wu màgg muy weeru yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon koo xam ne mbëggeel ci moom dafa war kon nag dañuy dellu ci njàng mag ñi ci njàngaleem mag ñi dañuy dellu ci mbindam cheikh al islam alaaji moom mi ñu wax ne bëgg yonentu bi texe la bëgg yonent mooy buntab texe mooy buntab ubbeeku mooy buntab saada daara ni dem bay wax ne faman raama darki fi istiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustahalan muharrama kon buñ royee ci moom danañ bëgg yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te njëkk loolu sax yàlla dafay wax ci alquran ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhibbukum allah dellu waxaat fi ne man yuti rasul faqad ata ku topp yonent bi topp nga yàlla bu fekkee da ngeen bëgg yàlla topp leen man yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg yàlla da ngay topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ku ko topp yàlla nga topp kon yonent boobu bu ñëwee di feete juddoom dañoo war a delluwaat si ay jàngaleem dañoo war a delluwaat ci ay digleem dañoo war a delluwaat ci roy ko ndaxte roy ko mooy yoonu texe roy ko mooy yoonu am saada daare ni kon buñ dajee ci weeru gàmm